ma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 bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil aalamiina wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina muhammadin al makin wa ala alihi wa asxaabihi ajmaina ixwata al imaani wal islaami wal ixsaani wal iraadati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki M Media Group Nuuru Daarayni ñëw leen di niiw di leen ziyaar di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala suñu rëcc rëcc te nugañu suñu jaamu yàlla di jël nuyoo boobu rek ak ziyaara bi di ko teg ci loxool suñu kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jot lu ñu ko mboole mbokk yi nga xam ne yi ñoom lañu bokkal liggéey bu sell bi di ñaan yàlla gën ñu ci jàppale gën ñu ci taxawu di jaay sayna muhammadin sallallahu alayhi wa sallama di dellu si waat ci liggéey bi eh, ci wàllu laaj yi ak tontu yi di sant mbokk yépp rek di leen gërëm di leen ñaanal itam waaye tamit di ñaan rek ñu gën a jàpp ci liggéey bi waaye tamit mbokki boroom xam-xam yi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ci seen taxawaay bu am solo boobu nga xam ne bii moom lañu ñu taxawoo diine ndax euh, taxawaay bu am am solo lañu ñu taxaw ndax euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa comme ni ko Cheikhul Xadim nettalee dafay wax ne euh, xayrukum man taallama alquraana wa allamahu ni mu koy waxee moom Seydina Muhammad noonu la ko wax ne ne ki gën ci yéen daal mooy ki jàng alquran ba pare wëlbatiku di ko jàngale jàngale alxuraan nag bu koy wax mooy dafa matale lépp luy njàngaleem diine fépp fu fi jullit nekk rek dinu jàngal diine nanu xam ne euh, dafa dugg ci foofu nga xam ne fii dafa am solo lool loolu taxan Cheikhul Xadim na mu ko waxee ca bayt ya euh, ni mu ko waxee muy euh, wa afdalu quraana rabbihi wa xayran allama noonu la ko leerale ci ay bayt ne ne ki gën ci ki nga xam ne moo gën ci nit ñi daal mooy ki nga xam ne kii dafa jàng alquran ba pare walbatiku nag di ko jàngalewaat kon uh, seen taxawaay boobu rafetlu nañ ko lool di ñaan yàlla yàlla gën leen cee defal tawfiq bu baax a baax su ko defee tey fatwa bi ñu jéem cee ñëwaat ci ay laaj yu am solo nag yoo xam ni tey tàbbi na fi euh, jóge war ci jëwriñu liggéey mi muy Mouhamadou Ngom ñing ñu di ko ñaanal yàlla gën a taxaw dëgëral taxawaayam bu baax a baax waaye tamit di ko ñaanal yéene ji nga xam ne ji moom la amal liggéeyal islaam yàlla defal ko ci ay tafeex yu kawe njortam ba ni mu ko bëgg rek maanaam mu amee ko ni nu gën a kawe njortam te xam ne moom it amel nañ ko njukkeel bu baax a baax a baax ndax euh, liggéey bu réy nii bu amee solo nii doon liggéey Xaadimu soo rek euh, ku ko xalaat euh, woo ci say mbokk woo ci mbokki jullit yi ñoom mënatuñ laa fay ndax tuyaa ju rëy rëy la joo xam ne ji da cee nekk mu am ko moom mu nga xam ne moo ko xalaat ba sos ko waaye tamit ñun ñu ko ci fekk it dañ ci am tuyaaba ju baree baree bari na tax sayyidina Muhammad sallallahu alayhi moo wax ne euh, man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyaamati sayyidina Muhammad ne ku xàll yoon wu baax te mooy nga doon ab jullit xalaat loo xam ne lu baax a baax la loo xam ne liggéeyab lislaam la nga def ko nit ña di la ca roy Euh, xàll ko nga xàll euh, yoon woowu ñu di la ca roy danga ca amee sa yoolu bopp boo xam ne bii yow moom yàlla dala koy defal jagleel la ko waaye tamit képp ku la ca roy képp ku ca ànd ak yow it yàlla dalañ dana daleen cay fay yool bu boo xam ne bi ñoom dañ ko cay am waaye yow tamit jëlaat yool bu toll ñooña yool bañ ci am yow mi ko sosoon ñu defale ko kon euh, tawfeex ju rëy rëy la yal na ko yàlla gën a jàppale mu am solo lool kon yal na ko yàlla defal looloo defal taw bu baax a baax bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey ñu jéem a dugg ci fatwa bi rek laaj yu am solo yooyu yi fi tàbbi tey yi ci jëkk di laaj boo xam ne bii moom Modou Ngom moo ko fi tàbbal ak beneen laaj boo xam ne bii al oustaz eh, Alioune Badara Ndiaye moom itam moo ko fi yónnee moom itam ñu koy ndokkeel bu baax a baax di ko ñaanal moom itam yàlla gën a dëgëral taxawaayam ci yittewoo goo xam ne gi yittewoo na ko liggéeyal lislaam yàlla na ko yàlla defal lu ko njottam ak képp rek képp kuy liggéeyal lislaam ak ku bëgg a liggéeyal lislaam bi jaay sina muhammad sallallahu su ko defee laaj bi nga xam ne bi moom la fi jëwriñ ngom ñing indi mooy dafay laaj ma mawqiful muslimina tujahal luuti yi fi yi wa baada mamaatihi ñooñu nga xam ne dañ leen di wax boroom ñaari tur yi te mooy niñ koy wax mooy ngóor jigéen dafay laaj ñooñu lan mooy taxawaayab jullit ñi ak ñoom ci jamono jooju ñuy dund waaye tamit bu ñu dee ñoom ñooñu doon ay ngóor jigéen euh, lan moo ca war a doon taxawaayab jullit ñi mu doon laaj bu am solo boo xam ne bii eh, boroom xam-xam yi nañ ci jàpp bu baax waaye gën cee def ay gëstu yit te gën ci def ay leeral ku ci nekk rek loo ci xam rek nga gën cee laay biir gën ñu cee jàppale ndax dafa yaatu lool dafa am solo lool ndax eh, ñaawteef yi nga xam ne bii moo am nii mu laaj ko eh, dafa rëy lool dafa garaaw lool dafa bari lu muy yàq lool loo xam ne lii Euh, ñun ñëpp dañ cee war a taxaw euh, di ci yee nit ñi di leen ko leeral ngir ñu mën ko moytu bu baax a baax ndax nag euh, ni muy tasaaroo di yokku saa su nekk di gën di yaatu loolu moom dafa war a tiital bépp jullit boo xam ne bii rek maanaam yaa ngi xam jëf jooju ni mu ñaawee waaye ni muy tasaaroo noonu nga war cee am tiit ak ak jaax jaaxle ba tax lépp luñ ci mën a def rek ngir leeral nit ñi ni mu bone ak ni mu garaawe ak ni mu mën a yàqee ñu laay leen ca biir di leen ko xa wax ngir loolu ñu mën koo gën a moytu bu baax a baax a baax daal euh, yal nañu ñoo ngi ci ñaan yàlla daal mu musal ñu ci euh, jëf ju mel noonu ak jëpp jëf joo xam ne jii yàlla gërëmu ko su ko defee euh, ñoo ñuy wax Euh, boroom ñaari tur yi te mooy ngóor jigéen mën nañ ko wax euh, euh, seeni mbir dafa day waar lool waaye it nañu xam ne loolu ñu def fekk na ñoom ay jullit la ñu doon maanaam am na ñoo xam ne ay jullit la ñu doon waaye di ko def loolu dañ dafa bokk ci bàkkaar yi nga xam ni maanaam moom la ñuy wax alkabair maanaam alkabair muy bàkkaar yi gën a rëy bàkkaar yi gën a màgg bàkkaar yi gën a bon maanaam loolu ci la bokk muy ngóor jigéen kon nañu xam ne nag euh, ku koy defit fekk ab jullit la maanaam dee su ko mën a génne ci njulit gi maanaam mënee su ko génne ci lislaam ndax kenn ab jullit la di ko wax ci aw làmmiñam ñuy gisit euh, muy def la nga xam ne lii moom la lislaam sant ab jullit mu di ko def kooku ab jullit lañ koy lay doon mënuñu koo génne ci mbooloom jullit mi waaye nag su ci boolee di def ñaawteef bu bon wii euh, dañuy jàpp rek ne ab jullit la maanaam boo xam ne bii ab saay-saay la waaye mi ngi def euh, bakkaar boo xam ne bii dafa bokk ci bàkkaar yi nga xam ne yii moo gën a màgg ndax euh, bàkkaar yi màgg yi ñaar fukk la te bu ci doon rek maanaam lislaam am na atte boo xam ne bii moom la ca teg te moom ngóor jigéen mii ci bàkkaar yooyu la bokk kon loolu it nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ba tax na euh, bu ñu leen dajalee nag moom ñaar fukki bàkkaar yi nga xam ne ñooy bàkkaar yi gën a màgg doon ñaawteef yi gën a màgg dañ ne moom njaa moom euh, ngóor jigéen yi moom moo ci gën a bon moo ci gën a rëy moo ci gën a màgg waaye bu ñuy xool ci biir bàkkaar yu màgg yooyu yu rëy yooyu tamit euh, dañuy daal di gis ne am na ci boo xam ne bii bu ñu ko jàngataatee comme ni ko Seydina Muhammad waxee sallallahu alayhi wa sallam dañuy gis ne boobu moom mooy bi ci jiitu nag mooy ndey ñaawteef yépp te mooy sàngara ndax sàngara moomu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dane ummul fawaaxishi wa akbarul kabairi sayyidina Muhammad ne ne sàngara moom mooy ndey ñaawteef yi te bakkaar yu màgg yu rëy yépp moom sàngara moo ci gën a rëy kon bu ñu gisee ab jullit di ko def kon dañuy jàpp rek ne jullit la waaye da caa boole ak caay-caay goo xam ne ma ngay def la nga xam ne lii moom la ko yàlla tere moom sàngara moomu nag li muy garaaw garaaw euh, dañ ne jarimatul liwaat min azamil jaraim bi nga xam ne bii maanaam moom la euh, yëfi ngóor jigéen di def nee na ci crime yi gën a rëy yi gën a màgg la bokk maanaam yi nga xam ne yi moo gën a doy wa aqbaaxi dunub ne ne bàkkaar yi itam boo leen di boole moom dafa bokk ci yi nga xam ne yi moo gën a bon ci bàkkaar yépp wa aswa il afaali ne itam jëf jëpp joo xam ne ji doomu aadama da koy def loola ñu di ko ca ñi buñ ko làngaleek euh, ngóor jigéen maanaam ngóor jigéen nga day gën a bon day gën a ñaaw wa qad aaxaba allahu faa'iliha bi ma lam yuaqib bihi ummatan min al umam te ne moom nja euh, ngóor jigéen googu ñuy def euh, yàlla da cee duma ñi nga xam ne ñii dañu ko ñoo ko jëkk a def ay duma yoo xam ne maanaam mosu koo duma wenn xeet maanaam xeet wi nga xam ne bii ñoo jëkk tàmbali di def ngóor jigéen yàlla da leen a duma leen ay duma yoo xam ne maanaam mosu duma wenn xeet woo xam ne bii maanaam defal nañu lu neexut yàlla bañ di leen ca duma wahiya tadullu ala intikaasi alfitrati wa tamsi albasirati wa qilati diyanati ne ne jëf jooju nag li tax mu màgg rëy noonu nga xam ne dafa bokk ci bàkkaar yu mag yooyu ñoo noonu ñaar fukk la waaye moom mu gën ca garaaw ba tax euh, duma yooyu nga xam ne moom la yàlla dumaan xeet woowu ko jëkk def mosu koo duma wenn xeet ne day tegtal ne moom ngóor jigéen daal Euh, day salfaañi maanaam nit ki maanaam ni mu waroon a mel euh, maanaam ay jëfam maanaam li mu waroon a jëf maanaam mu salfaañi ko di def loo xam ne nii maanaam warut a demee noona euh, wa tamsil basirati te nee na it bakkaar boobu day sabab nit ki xolom bi nga xam ne bii maanaam ak leer moo ci war a nekk muy gis yàlla gis ab baatin na ne ngóor euh, jigéen ki koy def euh, bëtëb xolom boobu maanaam day day gumba day muuru ba dootul mën a am ak leer waaye tamit ne loolu dina tax euh, ki koy def maanaam maanaam muy dund diine daal da koy jafe lool lool mu doon yëfi baatin yoo xam ne dafa bari lool di yàq nit ki di ko yàqal biiram ak biteem te ne wa hiya alaamatul xislaani wa sulamil xirmaani nasalullah al afa wal afiyata ne na kon muy ngóor jigéen moomu ne ku ñu ko gis ku ñu gis mu koy def rek nañu xam ne mooy màndar day wone mandargaam kii moom ku nar a torox la waaye tamit koo xam ne kii mi ngi aw ci yoon woo xam ne yoonu maanaam ñàkk lépp luy teraangay àdduna ak alaxira ci la aw kon ne ne maanaam moom ngóor jigéen moomu daal yal nañ ci yàlla musal te musal ci bépp jullit euh, su ko defee ba dañu dugg ci dëgg dëgg laaj bi rek mooy day faw ñu def ci ab laltaay comme nii may def nii ngir leeral ci dara nga xam ne maanaam bàkkaar boobu noonu la mel te gis nga bu ñu xoolee sababu taxrimi liwaat asadu min taxrimi zina maanaam booy xool ngóor jigéen eh, araamal gi ko yàlla araamal maanaam dañ koo xaw a langale ak njaaloo ni mu gën a araam ni mu araame waaye dam maanaam ngóor jigéen da koo gën a araam ngóor jigéen da ko gën a araam lu baree bare bari moom njaaloo li muy araam lépp te ne li tax muy saw ba taxrimi liwaat mooy lan nee na liwaata li annahu yasqutu ma nutfati rajuli mbokk yi ne yàlla dafa araamal ngóor jigéen ndaxte ne ki nga xam ne kii góor la bu fekkee ne day sëy fi nga maanaam buy sëy man ni yoom moo muy wàcc day ànd ak lim bu baree bari bari ci ay malaayika mu doon secret boo xam ne bu doy doy waar la bu yéemee yéeme la ne góor gi bu dee sëy rek maanaam man yow moomu di wàcce ci kanamam googu malaaka yu baree baree bari lay àndal fa ida waqaati nutfatu fi duburi lazi huwa laysa mahallan lil xiraasati maatu jamian góor googu bu fekkee ni euh, loolu muy sëyee te mën nii mi di ci jaar di wàcc di ànd ak malaaka yi ne ne mën nii moomu suñ ko wàccee ci ginnaaw maanaam mooy ginnaawa ak góor maanaam ñu dugal ko fa mu wàcc fa moom mën nii moomu ndax béréb boobu doonu béréb bi nga xam ne bii maanaam fi lañ ko war a fi la war a sotteku ne maanaam limab malaaka yooyu yépp dañuy dee gis nga ko kon ne ne limab malaaka boobu bu sotte foofu ci ginnaaw góor gi malaaka yi lu ñuy bari bari lépp du tere ñoom ñëpp dañuy dee ne nag ni ñu ko mën a misaale ne ne innahum bi manzilati farxil xamaam ne ne malaaka yu daan ni ma leen ko mën a misaale mooy mi ngi mel nii euh, pitax moo xam ne mii euh, dafa nen boofu ba toskan maanaam cuucam yu ndaw yooyu isa saqata min oshin alin ne tàgg moom nga xam ne mii ci la picc yu tuut yooyu di nekk fekk ci fu sore sori ci kaw maanaam garab gu soree sori kaw ca la tàgg ma nekk euh, nee na tàgg moom bu daanoo dangeen di xool maanaam picc yu euh, picc yu tuuti yooyu ci nekk maanaam nan la ñuy def atara yab xaa fii ne ne doo gis menn ci des ci picc yu ndaw yooyu ñëw ñëpp dañuy dee bu fekkee ni euh, dafa tàgg ma dafa jóge ci fu soree sori daal di daanu ci suuf daanu ci lu mel ni ay xeer kon gis nga ne loolu benn tomb la ci li nga xam ne ni bokk na ci di tax euh, moom njaaloo lu muy garaaw garaw lépp ak yeneen bàkkaar yee doon bàkkaar yi mag li ñuy garaaw garaaw lépp maanaam bàkkaar ab ngóor jigéen gën leen a màgg gën leen a rëy waaye itam dafay wax ne wa ida waqaati nutfatu fil farji lazi huwa mahallul xiraasati nee na nag mën yi moomu di génn ci góor maanaam su fekkee ni dafa sotteeku ci kanam ak jigéen nga xam ne foofu mooy béréb bi nga xam ne bii mooy béréb béyukaay bi ne ne fa innahu yabxa ma tilka nutfati al adadaani min al malaaikati ne ne malaaka yooyu nga xam ni moom la leen waxan ne leen ñooy ànd ak man yu mi bu fekkee ni kiy sëy góor gi da ko sotti ci kanam jigéen nga xam ne foofu mooy béréb bi nga xam ne bii mooy béréb béréb bu béyukaay bi fi nu ko fi nu ko yàlla digalee ne ne malaaka yi dañuy ànd ak man yu sotteeku ci biir foofu nga xam ne bi man yi muy sotteeku te bu boobaa ne dañuy nekk ñaari lim lañuy doon maanaam am na malaake yoo xam ne yii ci góor gi lay jóge yeneen malaaka yi jóge ci jigéen gi ne ne mooy adadu malaaikati nutfatil abi wa adadu malaaikati nutfatil ummi muy limab malaaka yi nga xam ni ñooy ànd ak man yoom góor gi waaye ak limab malaaka yi nga xam ni ñooy ànd ak Euh, manium jigéen ñi nee na nag mañ moo daalika salaasu miatin wa sittun wa sittuuna malakan an saafan baynahuma ne ne malaaka yooyu ñetti téeméeri malaaka la ñuy doon ak juróom benn fukki malaka ak juróom benn yoo xam ne ay malaka lañuy ñuy doon nga xam ne yàlla mi nga xam ne moo mën lépp moo sañ lépp te mën a def lépp def lu ko neex gis ko ko secret boobu nga xam ne bii moo am ci diggante ndox moomu nga xam ne day wàcce ci góor di dugg ci kanam ak jigéen ne fuñ ko fa wàccee rek maanaam limam malaaka yu toll nii maanaam day daal di wàcc foofu muy ñetti téeméeri malaaka ak juróom benn fukki malaaka ak euh, juróom-ñett asamanallaahu minu amin dégg nga kon daal bakkaar bu mel nii muy euh, liwaat euh, ne yal nañ ci yàlla musal kon ne lii daal bokk na ci li nga xam ne moo gën a garaawal bàkkaarab góor jigéen ba tax suñ ko làngaleeg bàkkaaram njàll wala yeneen bàkkaar ci des yëpp moom ni da koy gën a bari te yàlla da cee wax nag ay aay yu bare baree bari ci alquranul karim ndaxte fii mu ngi naan xaala allahu wa luutan id qaala li xawmihi atatuuna alfaxishata ma sabakum biha min ahadin min alalamin alxuraan bi ko yàlla wàcce yàlla dafa wax si na Muhammad ne ko na nga ko sama yonente ba ma yónni woon ci aw xeet ñu di ko wax luut luut ba mu demee ci xeet woo moo ko yónni dafa fekk ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo jëkk a def euh, bàkkaar bu mon bu bon bi bu mag bi te mooy ngóor jigéen luut di leen waar ni leen waaye yéen yéen a ngi def ñaawteef woo xam ne bi day yéen kenn jiitu leen ci maanaam yéen a ko jëkk a def ci àdduna bi yéen a ko jëkk a def ci kaw suuf yéen ko jëkk a def ci yéen a ko jëkk a def xeet yi leen fi yi fi yi a jaar yépp yéen dong yéen a mas a def ñaawteef wu mel nii ne leen innakum la ta'tuuna ar-rijaala shahwatan min duni nisaa'i bal antum qawmun musrifun ne leen yéen day lii ngeen di def te mooy góor ak góor di seeg jigéen nga xam ne loolu góor ak góor ak góor di sëy loolu euh, ak ñaawteef la wu bon a bon woo xam ne bii euh, benn bakkaar benn ñaawteef féetewoo ko kaw waaye nag gis nga ne la ko gaayam ya tontu mooy wama kaana jawaaba xawmihi illa an xaadu axrijuhum min xaritikum innahum unaasun yatataharuuna gis nga ci ñooña waar ga leen yonente boobu waar jëriñu leen ndax lañ ko tontu mooy bi ñu déggee Luut di leen wax loolu maanaam bëgg leen koo tere di leen wax bon gi nga xam ne gi moom la bon dañ ne ñii nañ leen génne ci suñu dëkk bii ñii kat ay nit lañu yoo xam ni maanaam ñoom dañoo bëgg fu ñu nekk di laab dañoo bëgg nekk nit ñoo xam ne ñii ñu laab lañu. kon gis nga seen wax jooju ñuy wax boo koy xool boo koy jàngata da ngay daal di dégg ci ne ñoom comme xam nañu la ñuy def maanaam lu bon la lu lu salte la lu baaxut la. ndax ne fii mu wax ne innahum unaasun yatataharuna ñii kat ay nit la ñoo xam ni dañuy laab ndax nañu bañ loole nga xam ne nii moom lañ doon def kon xam nañ ne ñoom lañ doon def dara baaxut ci sobe la baaxut waaye nag yàlla ne fa anjaynaahu wa ahlahu illa imraatahu kaanat min alxaabirina yàlla ne ne sama yonente boobee nag bi xam mu bi mu demee ba xam ne ñii mënalu leen dara te dina leen dinañ ko jéem a sàkkalan pexe ak ñi ko gëm yàlla ne ma musal sama yonente boobu ak waa këram ña ba mu des jigéenam ba mu des euh, soxnaam ba mu des euh, jabaram ca ne soxnaas luut euh, yàlla da ko alagaale boole ko ñooy nga xam ne ñoo doon def ñaawteef woofee ñoo doon def ñaawteef woofee eh, loolu tax seydina muhammad sallallahu alayhi wa dafa wax ne man wajatumuhu yaamalu amala xamalutin faqtulul faa'ila wal mafuula bihi Seydina Muhammad dane képp koo xam ne kii gis ngeen ko ci kaw suuf muy def jëf jooju nga xam ne ji niti luut ñu bon ñooñee moom lañu doon def eh, ne ne na ngeen rey ka koy def ak kañ koy def maanaam dane daal bu ngeen gis ñaar ñoo xam ne ay góor lañu di sëy maanaam muy ngóor jigéen ne ne kay sëy ak kañuy sëy ca ñoom ñaar ñëpp na ngeen leen rey waaye tamit Seydina Muhammad waxaat daan ne laanallahu man amila amala xawma luutin laanallaahu man amila amala xawma luutin laanallaahu man amila amala xawmi luutin Seydina Muhammad ci garaaw goo xam ne gii maanaam ngóor euh, jigéen da ko garaaw dafa waxaat beneen xadis boo xam ne bii da cee da cee ñaan yàlla képp ku koy def daal di yàlla daal yàlla na nga rëbb yàlla na nga alak képp koo xam ne kii mu ngay def jëf ja xam ne ji nit ñi wax ñaa moom lañ doon def loolu Seydina Muhammad da ko ñaan yàlla baamu ko lu mën ñetti yoon nga xam ne kon garaaw gi nga xam ne gii moom la bàkkaar bu garaaw ak la cay fekk nit ki moom moo tax Seydina Muhammad loolu mu leen doon ñaan di ñaan yàlla al képp ku koy def mu di ko baamu ba di ko baamu lu mat ñetti yoon euh, li alxuraanul karim wax nag ci garaaw goo xam ne gi ngóor jigéen da koo garaaw waaye Seydina Muhammad it wax ko ci ay xadis yu bari yoo xam ne yi ñaari xadis yooyu rek laa ci indi ne ne wa zalika li idami mafsadati hadihi aljarimati allati takaadu ardu tamidu min jawanibiha isa umilat alayha ne li yëpp nag ngir euh, rëy ak màggaay ak garaaw goo xam ne gii euh, moom ngóor jigéen da koo am ci di ci yàq ak it nga xam ne dafa garaaw ba suuf si nga xam ne si ci la nekk ne ne fépp foo xam ne fii maanaam ñu koy fay def ngóor jigéen maanaam ñu ngi ko fay def rek ne ne suuf soosa maanaam day bëgg a wengulu benn côté bu ko defee sotti ña nga xam ne ñoo ñoo ñoo nekk ca koom ñëpp saa bu ñu ko def ne ne noonu la suuf si bëgg a def wa tahrabul malaaikatu ila aqtaari samawati wal ardi ida shaahaduha xashyata nuzul al asab ala ahliha waaye ne ne yi malaaka fu ñu gisee ñaari góor di sëy ne dañuy daal di naaw daw dem di làqatu ji ca eh, bérébi asamaan ya ak bérébi suy fu ñu fa mën a làqatu dañuy dem di làqatu ji foofee suñu gisee loolu ngir ragal ne fu ñu koy defee daal fii moom bu yeboo ku ko mën nga sore fi ndax fii moom mbugal mu rëy rëy mën na fee wàcc wa taxujul ardu ila rabbiha suuf si itam di yuuxu jëm ci boroomam ngir bàkkaar boobu mag gi mag ak rëy gim rëy wa takaadul jabalu tazulu an amakinih waaye itam ne ne montagne yi li muy dëgër dëgër fu ñuy defek njaaloo maanaam montagne yi dañuy cay tiit jàq ca ba di bëgg a di bëgg a moom ñoom montagne yi li ñuy dëgër dëgër lépp ak li ñuy rëy rëy lépp kon daal lii lenn la ci ab laltaay boo xam ne bi dañ ko doon def rek ci euh, laaj bu am solo bi nga xam ne bi mbokk mi tàggatal na ko fi jëwriñ Modou Ngom mu jëm ci wàllu bàkkaar bu jëf ju bon jooju te bari bàkkaar lool te di yaatu lool nag jamono euh, nga xam ne daanaka day gën di yokku saa su nekk rek te moom lu bon moom lu mu gën di yokku rek di gën di bon di gën a garaaw ndax ña euh, cay bokkut xaj na bu doon doon yaatu duñ ko xam sax bari ca bokk dañ cay day di bokk yàlla nañ yàlla musal di jaay seydina muhammad sallallahu kon laaj bi nga xam ne bii moo jiitu rek ñuy xool kon lim laaj ne kon ku mel nii koo xam ne kii ak ngóor jigéen la maanaam jullit ñi ban taxawaay lañu ñu war a taxawee ak moom nene lan mooy maa mawqiful muslimina tijaaha luuti fii xayaatihi nit ki wala boog jullit ñi ban taxawaay lañu war a am bu ñu gisee koo xam ni kii maanaam euh, day def ngóor jigéen euh, xam naa taxawaay boobu moom mooy taxawaay bi ci sirna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aman ci dundam waaye tamit saxaaba ya aman ci taxawaay boobu ci bu ñu gisaa ko mel noonu mooy Euh, li Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxan ne euh, ku ngeen gis muy euh, def jëf ja xam ne ji niti loot ña dañ ko doon def te mooy ngóor jigéen na ngeen rey ka koy def ak kañu koy def loolu moom Seydina Muhammad moo ko wax muy hadis bu leer nañ boo xam ne bii taxawaay boobu bu fekkee ni lislaam dañu koy atte fii ci réew mi faaw ñu sàkk ñoo xam ne ñi taxawaay boobu dañ koy am ba ku ñu gis ne maanaam ab julit la euh, di def ñaawteef boobu maanaam euh, dañu koy rey rey ka ñu koy def waaye tamit euh, faxad añ maa saxaabatu xat xatmi luuti saxaaba yi ñoom seen bopp itam seen ab taxawaay ñoom ñëpp dañoo d'accord ci ne al luuti mooy ki nga xam ne kii de def nguur jigéen moom maanaam dañ ko war a rey ak xeetu rey wa doon te wuute nañ ca itam ndax na ne lakin ixtalafu fi tariqati qatlihi waaye nag dañoo wuute ci ne maanaam ki nga xam ne kii di def ngóor jigéen moom dañ ko war a rey d'accord nañ ci waaye buñ koy rey nan lañ koy reyee fa minhum man zahaba ila an yuhraqa binnaar am na xam ne ñi dañu ne ngóor jigéen buñ koy rey maanaam dañu ko war a lakk wa minhum man xaala yurma bihi min ala shahiqin wa yutbaa bil xijaarati am ñoo xam ne ñu ne dañu ko yëkkati ba mu dem ci béréb bu kowee kowe bu njool njool maanaam ñu daal di koy bàyyi mu wàcc maanaam ñu ñu daane ko mu daanu ci suuf su daanoo rek maanaam ñu daal di koy jël di ko sànni ay xeer ba kera muy faatu wa minhum man xaala yurjamu bil hijarati xataa yamuuta am na ci saxaaba yi ñoo xam ne nañ ne buñ koy rey daal maanaam nañu koy sànni ay xeer ba zakkara muy faatu rek waaye tamit am na ñoo xam ne dañu wa minhum man xaala yuaqabu uqubata zani am na ñoo xam ne dañ ne moom comme li ñu war a def euh, am njaaloo ka rek maanaam moom lañu ko war a def kon euh, wa minhum man xaala yulqa alayhi aljidaaru xatta yamuuta taxtal hadimi am ñoo xam ne ca saxaaba yi dañ ne dañuy dañu jël ñoom ñaar ñooñu nga xam ne dañ doon def ak jigéen maanaam tëral fi wet ak miir daane miir ba ca seen kaw bàyyi leen fa ba ñu dee wa xiila yux basaani fii antani mawdin xata yamuta dégg nga am ñoo xam ne ñi ca saxaaba yi dañ ne daal ñii dañ leen dañu xool béréb boo xam ne bii xet gu bon a xesew xesew moo fa nekk ñu tëj leen ca biir béréb boo bàyyi leen a xet googee mu di leen xeeñ ba ñu dee kon daal bu fekkan ni li mu wax nii ne maanaam ñooñu doon borom ñaari muy ngóor jigéen jullit ñi ban taxawaay lañ ci war a am moom bu doon charia la ñuy àtte eh, nii rek maanaam lañ ca war a amee taxawaay boobu ak ñoom waaye nag jéem ñoom am na ci ñoo xam ne dañ ne ay jullit lañu te fii ci sunum réew moom amul koo xam ne maanaam du ñu fa sa àtte charia maanaam wala wala boo yaatu fi bari fii kon ñun moom la day war ñun jullit mooy euh, nag ñu maandu ci ñoom ñu maandu ci ñooñu nga xam ne ñi ñam dañuy def euh, ñaaw defu ba moowee maanaam lu ci ñoom rek bañ a seq ak rek loola moom moom moom la nu war a def en tant que en leen mën a moytu bañ a seq ak ñoom dara euh, rek maanaam loolu moom bokk na ci taxawaay bi nga xam ne bii war nañ koo taxaweek ñoom jéem dañuy wax ne ay jullit lañu waaye itam ñu ngi def ñaawteef bu bon boobu nga xam ne comme ni ma ko waxee te njëlbéen nga mooy mënee su leen a génnee ni leen du ay jullit waaye nag kon mën nanoo maanu ci ñoom jéem atte ba nga xam ne bii moo war a ndaw ci ñoom moom am deesut am sañ-sañab atte leen ko kon am nañu sañ-sañab maanu ci ñoom wax dëgg yàlla ci lépp lépp lu mën a maanu ci ñoom rek ba ñu seqal ñoom dara ndax booy xool euh, atteeb euh, ki nga xam ne kii dafa julliwut maanaam dafa bañ a julli dafay euh, euh, xaw a niroog atteeb ki nga xam ne kii dafa njaaloo waaye xaw a niroog atteeb nga xam ne kii day def euh, bàkkaaroog ngóor jigéen bii ndax ki nga xam ne kii dafa bañ a julli ngir ne julli amul kooku moom sariya da koy rey sariya da koy rey moom amul maanaam luñ ci bay na bay na ak di ko werante moom borom xam-xam yi moom loolu moom euh, amut lenn loo xam ne ni maanaam werante nañ ko ci wala ñoom ci ak wute ki nga xam ne ki dañuy julli amut ba tax du julli dañ koy rey dañ ko war a rey charia da koo rey te ne nañ bu ñu ko reyee li ñu defal ab jullit ngir waajal ko ngir dañ ko duñ ko ca defal dara maanaam ñu ko sang duñu ko sang duñu ko jullee waaye itam duñ ko suul fa ñuy suul euh, julit ña waaye ne bu fa imam ne day yebal jenn waay rek wala kay atta sa charia bu fekkat ne am na day yebal jenn waay rek mu gas mel na pax mu yaatu daal di fexe ba ba wax ko ci te fexe ba du jublu euh, penku bi mu daal di koy suul waaye keneen ki ci des mooy ki nga xam ne ki neneb jullit la nangu na ne julli am na waaye dafa nanguuta julli kooku it ak àtteem tey mooy dañ ko war a rey waaye buñ ko rayet nag gis nga dañu naan maanaam dañu koy jullee maanaam dañu koy sang dañu koy sang dañu koy jullee dañu koy suurit fa ñuy suul jullit ñë kon euh, moom mii itam walla ñoom ñi nga xam ne dañ naa ay borom ñaari tur lañu maanaam ay ngóor jigéen lañu ku ci nekk wax ab jullit maanaam atte boobu ñu atte kook nga xam ne kii maanaam nungu na ne julli am na waaye nungut a julli euh, def na ate boobu moo war a mën a daw ci moom das ko war a rey bu fekkee ne charia fiy dox waaye tamit yooyu ñu defal ab jullit ñu defal ko ko waaye tam dañ koy sanctionné ba euh, julleem googee ak gunge gañ koy gunge di ko denc yëpp kenn ku ñu yaakaar ne ku baax la daal euh, dañu naan bul ca dem bul ca bokk ngir mu jaaj ñeneen ñi nga xam ne dañoo nar a mel noonu. beneen laajam bi ci lim mu wax euh, ban taxawaay la jullit ñi war a am ginnaaw bu faatoo. dañ neen mooy comme loolu ma doon wax sànq nañ rek daanaka indaale na ko fa kullu man maata ala al islaami tushrau salaatu alayhi dañ ne képp koo xam ne kii ab jullit la bokk ci lislaam maanaam bu faatoo moom dañ ko war a julli wa xuduru janazatihi waaye itam dañ ko war a gunge suul ko denc ko waxtaara baadu ahlil ilmi anna ahla salaahi wa man yuqtada bihim yusrahu yusrahu lahum adamul xuduri li janazatil fusaq waaye nag ñenn ci borom xam-xam yi comme li ma doon wax sàng nii rek ci kii jullit bi ne julli am na waaye nunguute julli ne ne xam-xam yi dañ ne képp ku yaakaar ne ku baax la képp koo xam ne kii dañuy roy ci moom daal ne nañu charia yow day bëgg ci yow maanaam nga bañ a teewee néew bu mel noonu. maanaam fu euh, fusaq mooy saay-saay si la wax te saay-saay si booy xool ñoom ñëpp ci lañ bokk ñaar fukki bàkkar yooyu yëpp euh, jullit bu koy def dañu naan ab jullit la waaye jullit bu saay-saay la kon ngóor jigéen gi da ciy bokk kon fi la waxaan ne dañ ko war a rey bu fekkee ne fu ñu atta charia la buñ ko reyee ñenn ci borom xam ne ne nañ ko sang sang ko jullee ko waaye nag euh, ku ñu yaakaar ne ku baax nga moom bu bu bu ca bokk bokk ca denc ba ak jullee ga zajjara linnaas an taati mithli zalika ngir jajje ko ñeneen nit ñi ngir ku gis ne kii kat bi mu faatoo képp ku ñu yaakaaran ne ku baax la bokkoo ca julli ga bokkoo ca bañ koy gunge dina la mën a tere euh, boo naroon a def lu mel noonu maanaam nga bàyyi ko waaye nag ñoom borom xam ne dañ ne wala budda an yusalliya alayhi baadu naasi nag waaye na ne jéem ab jullit la kët ñaawteef yi bu ko defee ba ñu ray ko bu ñu ko rayoon ci fu ñuy àttee sareet ne na ñenn ci nit ñi daal euh, dinañ ko jullee waaw ñu jullee ko wa in kaana munaafiqan qad ulima nifaquhu lam yusalla alayhi ne nag bu fekkee ne koo xam ne kii moom naafiq la bu leer nañ ne kéem naafiq la moom ñu xam ko bu boobaa ne bu faatoo moom comme na euh, ma waxan ca kana julli amut ba bañ a julli boobu atte moom it mooy daw ci moom ne na deesu ko jullee wa man lam yu'lam nifaaquhu sulli ali waaye nag koo xam ne kii doon am naafiq waaye ñun xamunu ne am naafiq la waaye nee na jullit la su boobaa comme euh, alfusaax muy saay-saay yi nga xam ne ci dañu def yu bon yooyu te xamuñu nag ca seen xamuñu ne moom ay naafiq lañu su boobaa dañ leen di julli wala yajuusu li ahadin an yatarahama ala maata kaafiran waaye nag nee duñu du ñu mayeb jullit moom ngay yërëm koo xam ne kii leer na nañ ne moom bi muy faatu moom dafa faatu ci ak kéefër ak waman maata muzhiran lil fisqi ak koo xam ne kii gis na maama fii minal iman ka ahlil kabair waman maata muzhiran lil fisqi maama fiihi minal imaani ka ahlil kabair waman imtana min asalaat zajjaran li amthalihi an misli fi'lihi nee nag koo xam ne kii moom ne nañ ab jullit la waaye nag gisal nañu muy def ak caay-caay di ko wonee waaye tamit dafa am ak gëm yàlla manam ku gëm la comme ñi nga xam ne ñi dañuy def bàkkaar yu mag yooyu ma doon wax ak koo xam ne kii bañ naa julli waaye nangu na ne moom julli am na ab jullit la ah dañ leen di defal lañuy defal jullit ña ca wàllu bu ñu faatoo ñu sang leen sang leen jullee leen waaye suul leen ca euh, fa ñuy suut jullit ña waaye nag ñu fexe ba kenn koo xam ne kuñ yaakaar ne ku baax la maanaam nga bañ a bokk ca julli googee kon xam naa ñaari tomb yooyu daal muy taxawaay bi ñu war a am bu fekkee ni mi ngi dund moom ñoo ñu def eh, ngóor jigéen ak eh, bu fi jógee ban taxawaay la war a am xam naa ñu gën cee defaat ab eh, gëstu dëgg-dëgg waaye itam mbokk yi borom xam nga li ci mën a def ci gëstu gën ñu cee mën a leer itam maanaam soxla nañ ko lool ndax euh, atte bii nga xam ne bii mooy daw nii rek lañ teg ci euh, taxawaayu jullit ñi ci ñoo ñuy def euh, ngóor jigéen waaye tamit bu fi jógee itam lii ci borom xam-xam yi wax atte boobu rek lañ mën a jël tegal leen ko maanaam mu doon seen ab taxawaay ci ñoom beneen laaj bi ci topp Aline al oustaz Aline Badara moo ko fi yónnee moom itam muy laaj bu am solo muy ahkaamu nabshil mayit ne day laaj eh, ab eh, ku faatu daal lan mooy atteeb ñu dem di ko suliwaat ak it bu fekkee ni eh, lu mën a ne la ci yan anam mooy waral ñu mën koo sulli dañ ko naan dakarul ulamau annal mayta laa yajuusu nabshuhu baada dafnihi illa li daruratin boroom xam-xam ne nañu ki faatu bañ suul ko du dagan ci kenn muy dem di ko sulli ginnaaw biñ ko suulee lu dul nii ci lu mënta ñàkk boobu nag day jël xaay xaayidaab ad daruraatu tubixul mahduraati waaw léegi daal nañu xam ne boroom xam-xam moom li ñu wax ci wàllu googu mooy ku faatu ba ñu suul ko maanaam daganatul léegi ñu dem di ko sulli ji waaye nag bu ñu gisee loo xam ne li mënta ñàkk la su boobaa ne ne dinañu may ñu dem sulli ko ndax dañ ne lépp loo xam ne lii charia da koy tere maanaam di ko moytuloo suñ demee ba xam ne loolu lu mënta ñàkk la ndax la cay amee mooy gën a tar buñ ko defut loolu leneen dañ la dañ lay da koy daganal ngir ñu mën koo def wa zalika lima fii min min intihaaki xormatihi baada dafnihi nee na nag li tax euh, boroom xam-xam ne ku faatu buñ buñ ko suulee buñ ko sulliwaat maanaam nit ki faatu ba ñu denc ko dem di ko sulliwaat maanaam nee na loolu xotti ormaam la maanaam xotti orma yi kooku ñu suulal la ba pare ginnaaw bi ñu ko suulee fa nabshuhu naq naqli wa yi ka salaati alayhi wa takfiinihi fa xaraamun ne ne eh, nit ki buñ ko suulee ba pare ñu dem di ko sulli ngir ne dañ koy toxal yóbbu ko feneen wala leneen lu mu doon loo xam ne lii sabab la daal loo xam ne moo tax ñu bëgg koo sulli di nga ci wax na ci lu mel ni julli ak ñu ma ñu koy sàng ne leen yooyu moom dañ koo tere fa xaraamun dafa araam kon yooyu nañ ko moytu maanaam daal suul nit ba pare daal sulli ko daganut maanaam ñu ko lu dul ni dafa mënta ñàkk xaj na kon lim ne ci yan anam lañu koy mayee lay mën a nekk it xaj na dinañ ci wax lu ci tënku loo xam ne di day tënku muy waye juusu nabsuhu li asbaabin chariyatin waaye nag ne ne ay sabab yoo xam ne ñi maanaam charia moo ñëw teg ko dañ koo teg rek ci charia bu boobaa des na mën a sutli bàmmeel boobu waaye nag ay sabab yoo xam ne dafa tege ci charia ne ne bokk na ca ka an yuddfana ila xayril xiblati ne ne nit ki buñ ko suulee te mu doon ab jullit ñu gis ne kii kat biñ ko suulee maanaam dafa mooy xibla gi maanaam jubluwul penku comme ni ñuy tëralib jullit buñ koy suul ne ne su loolu amee moom ñu xam ne nii la demeen moom mayees nañu sulli ko euh, jubbanti ko ba mu jublu xibla aw fii ardin marsubatin wala ñu gis ne kii kat biñ ko suulee suuf si ñu ko suul dañ koo sàcc biñ ko suul ki ko moom nii maanaam dañ koo agressé borom maanaam di fi suul ay nit su boobaa ne ne ku fa suul sa nit te xamoon ne noonu la demee soo xamee ne suuf sii kat dañu ko nungoo ci nit di fa suul bu boobaa euh, may nañu la nga dem sulli ko dem yóbbu ko ci seneen suuf aw bi bila rusmin wala walla bokk na ca koo xam ne gi dafa faatu maanaam sanguñu ko ah, daa di koy suul noonu euh, gis nga nag sang gis nga ne na sang moom dafa nekk loo xam ne lii ala kulli xaal dafa war ñu defal ko néew bi kon na ne nga xam ne ki dañ koo suul te sangaguñ ko euh, te sanguñu ko boobu it dinañ la may nga surli ko euh, ngir ñu sang ko aw waqaa fil xabri maalun wala boog bi ñu gasee bàmmeel bi alal wadd ci biir bàmmeel bi maanaam ab xaalis masalan mën nañ ko wax bu fekkee ne xaalis boo xam ne bii ka ko moom mënu koo muñ wala ña ko moom ñu koo muñ xaalis boobu dinañ may ñu sulliwaat bàmmeel bi maanaam ngir génne xaalis boobu wali mu jaawarati saalihin li taawu daalihi barakatuhu nga ne bokk na jee lañ lay may ngir nga sulli ko ginnaaw buñ ko suulee nga sulli ko ngir dem di ko langaleeg euh, nit ku baax koo xam ne ki yaakaar nañ ne kii moom ku jege ñeeg moom leeram nga mën na laa dimbali nga taamu ko sulli ko dem langale ko moom ngir maanaam leeram yooyu mu di ko ci sédd di ko ci dimbali muy dem ca moom kon yi daal bokk na ci yi nga xam ne yi mayee nañu ki ñu suul ba pare ñu mën a dem sulli ji ko waaye yëpp nag day tege ci e, nañu am xam-xam wala boog ñu gën am yaakaar ci ne maanaam suppeekoo gut ba buñ ko génnee benn jafe-jafe du ci am waaye nag buñ ko fa bàyyee ba nga xam ne toll na ci di suppeeku moom euh, deese du ko dindi nag dañ ko fay bàyyi rek kon xam li ñuy mujj ci laaj bi rek muy lii ci ñu ne jàngal fiqhul dañ ne wal malikiyatu jawazu naqlal mayiti baada dafnihi bi shurutin thalatha ñu ne jàngal fiqhul imam malik ñoom ne nañu mayees na ñu toxal am néew ginnaaw bi ñu ko suulee waaye ñu teg ko ci ñetti charte charte bu jikki mooy an laa yan fajira xaala naqlihi yi na bi bokk na ci charte yi ñu mën a toxal néew bi yóbbu ko feneen ginnaaw bi ñu ko suulee muy na leen leer ne ba kat buñ ko génnee moom néew bi du explosé maanaam toll na faw na fii yaram wi niweegut ba buñ ko génnee da nga xam ne day taj day tocc nee na bu leen leer bu ñu amee garantie loolu mën nañ ko soli toxal ko yóbbu ko feneen waa allah tuntahëk xormatuhu beneen sartu ñaari mooy ne ne góor góorlu ba sutural ko bu ñu xotti euh, saatiram mukk maanaam bu ñu nañ ko sutural suturaal góor góorgóorlu ba lenn du ca feeñ loo xam ne lii xotti ormaam lay doon waaye tam wa an yakuna li maslahatin waaye tamit sart ba ca toppaan muy euh, nañu gis ne kat kii kat ñu ngi koy bëgg a waaye maanaam lu baax ci moom loo xam ne lii moo gën ci moom moo tax ñu bëgg ko génne def ko feneen ka an yu xaafa alayhi an yarixal baxru xabrahu bu fekkee ne dañ koo suul foo xam ne fii dafa jege géej ñu yaakaar ne géej gi kat dina nangu bàmmeelam bii dugal ko ci biir géej gi su booba boobaa dinañu maye ñu dindi ko toxal ko feneen fu sori géej ga aw yaakulahu sibao wala ñu denc ko foo xam ne fii eh, ay njaay àll nga fa yoo bu ñuy dem rek bu ñu fay wéet dañu koy sul dañu koy sulli lekk ko su boobaa dinañ leen may ñu génne ñu génneel ko seen bopp sulliwaat ko daal di koy toxal feneen aw turja barakatu alman al manqul ilayhi walla ñu yaakaar ne kat fee ñu ko bëgg a toxal kat maanaam moo gën ci moom fii nga xam ne fii fii lañ ko jëkkan a suul comme na ma ko waxoon ci béréb boo xam ne bi dañ faa denc ñu baax wala ku baax ñu ne kii kat nan ko toxal yóbbu ko fee mu jege kee ngir leeram yooyu di ko ji moom mii nga xam ni moom lañ defal fii kon xam naa ñu ngi taxawandi fii rek di ñaan bokk yi tamit eh, luñ ci am ci luñ gën a mën a leeral rek eh, yittewoo nañ ko soxla nañ ñu baax ñu ko yal na yàlla doole defal tawfiq bi jay kon laaj ji ci toppaat rek eh, jawriñ ji moo ko fi indi muy Alaaji Mbay sëriñ Alaaji Mbay ñoo ngi koy ziar bu baax moom dafay laaj xukmu nafli asna xutbatil jumaati dafay laaj lan mooy atteeb bu imam toogee ci minbar bi ba tàmbali bi xutba jamono jooju maanaam lan moo fay atteeb nafila dañ ko naan dahabal xanafiyatu wal malikiyatu ilaa annahu laa yajuus liman daxala al masjida wal imaamu yaxtubu an yusalliya bal yajibu alayhi an yajlisa masala bi daal muy laaj bi moom buñ ci bëgg na noppalu daanaka wax naa ko lu baree bari muy dañuy tënku rekk ci ngiram imam malik ci wàllu googu ndax imam malik li mu wax ci naafila bu imam nekkee ci kaw minbar bi du xutba ñoom moom d'accorduñ ci maanaam dañ koy tere maanaam ñu ñuy wax almaliki yam ñu ñuy jàngal alfiqhul maliki ak alxanafiya ñoom dañ ne mayuñu ki dugg ci jàkka ji fekk imam di xutba muy julli maanaam di naafila waaye dañ ne li ci war mooy bu ñëwee fekk imam ji jamono jooju mu nekk ci xutba bi na xool fu mu toog rek toog ndànk te déglu xutba ba lii nag moom nañ ci jéem a tënku xam ne imaam daal bu fekkee nañu tënku ci ngër ngërëm imaam Malik te moom lañ ñu sant ñun waa senegaal ñu tënku ci mooy boo fekkee imaam ci kaw minbar bi ba mu tàmbalee di xutba nga toog déglu xutba ba ndax nag nañu xam ne xutbaab ajjuma moom ci julli gi la bokk da cee bokk maanaam am ci solo lool te jamono jooju da ngaa mën a jàpp ne rek dugg nañ ci julli gi te yow la la ci war mooy boo ñëwee nga toog déglu xutba bi lañ cay tegtaloon ak ñoom ñooñu mooy dane qawluhu sallallahu alayhi wa sallama ida daxala ahadukumul masjida wal imaamu ala al minbari fala salaata wala kalaama xatta yafraxa al imaam hadis bi lañu tegtaloo ñoom ngir ne foofu waree sufee naafila dañ ko fay tere mooy Seydina Muhammad dafa wax ne kenn ci yéen su duggee ci jàkka ji fekk imam ca kaw min barba muy xutba ne na jamono jooju julli amut wax itam wërta am maanaam bu ñu julli muy bu ñu naafila bu ñu wax ba imam ja di pare ba imam ja di noppe nag mooy ba kër julli ga di jeex kon diggante boobu xaddis boobu la ñuy tegtaloo ne daal kon naafile ci digg jamono jooju moom dañu koy tere munu tënku ci ngërëm imam malik beneen laajam bi itam mi ngi laaj xukkumul mururi mu musalli maanaam kiy julli atteeb romb ci kanamam kiy julli na ndax war nañoo romb ci kanamam bu dee julli wala déet dañ ne ida kaanal musalli yusalli ila sitratin jaasal mururu min wara is kiy julli bu fekkee ne dafa def saatir te mooy loolu ñu ne boo dee julli foo xam ne ragal nga ne dañuy romb ci sa kanam nga wut ko teg ko ci sa kanam mooy saatir ne ne kiy julli su ko defee ci kanamam kenn wërta jaar digganteem ak saatir soosu wa ida kaana yusalli ila xayri situratin jaasal mururu baayidan minhu waaye itam bu dee julli te deful saatir soosu ci kanamam Euh, booy jaar ci kanam ne ne boo ko soree boo ko soree maanaam may nañ la nga jaar ci kanam jël waaye boo ko jegeñee nga xam ne bu tàllalee loxoom maanaam man laa baare su boobaa nga ne duñ la may ngay jaar ci kanamam waaye nag boo ko soree boo ko soree moom terewuñu ko waaye jege ko nga xam ne daanaka da ngay jaar fi nga xam ne fi la war a sujjóote daal euh, loolu moom dañ koy tere waaw moom dañ koy tere ne laay juusul mururu bayna yaday musalli li anna nabiya naha an zalika loolu nag Seydina Muhammad moom moo ko tere moom ne ne ñu nit ki di romb ci kanam kiy julli ndax Seydina Muhammad moom da koo tere wa bayyana ma fihi min alwaayidi te it da caa leeral moom Seydina Muhammad la ca nekk ci ay tëkku maanaam tëkku yi ñuy tëkku ki romb ci kanam kiy julli Seydina Muhammad dafa wax ne law yaalamul maaru bayna yaday musalli la kaana an yaqifa arbaina xayran lahu min an yamura bayna yadayhi sina Muhammad dane kiy jaar ci kanam kuy julli maanaam bu xamal la ko ci mën a fekk dina gën ci moom maanaam mu taxaw ñeen fukk waaye nag ñeen fukk yi leeraluñ ko ban ñeen fukk la ñeen fukk lan la doon mu taxaw ñaata mu taxaw euh, ñeent fukki lan waaye dafa wax limam ñeent fukk rek daal ni daal ki nar ci kanam kuy julli su xamal la ko cay fekk daal dina ko jaral mu taxaw ñeent fukk ñeent fukk yi nag ñu ngi ko jàngal ci biir fiq ci ci xadis waaye itam daje ñu fu ñu leer ne ñeent fukki nangam la daal kon daal la ñu xam ne romb ci kanam kuy julli daal boo ko soree moom garawut waaye boo ko jegeñee nag moom nga xam ne jege nga ko ba daanaka di jaar fa muy sujoote moom dañ la koy tere waaw kon nañ ko moytu bu baax a baax loolu moom dafa bokk ci li nga xam ne lii eh, ñuy jàngale eh, dañu koy tere waaw kon ñu jàppe ko noonu rek tawa